la pour que xale yi gën a xamante gën a jàppante gën a euh, jàpp ne li tabax Sénégal ci valeur yi la te jeunesse bi moo ko mën a porter moo ko mën a euh, incarner may wax ne it phase nationale bi occasion la it activité sportive yi ñu jëm ko lëkkaleeg activité culturelle nous sommes un département de jeunesse de sport et de la culture donc activité culturelle yi dafa war bokk ci li jëmmal phase yi li animé phase yi baari jaari ci également xale yi jeunesse yi mën ci jàng mën ci euh, xam seen bopp mën ci jàpp jàng seen valeur ak seen seen aada ak seen cosaan kon bu ñu lëkkalee ñaari activités yi ñaari conscience ñaari façon yi day fekk ñu xam ne jeunes ñoo mën a tabax Sénégal te jeunes yi mën mën a incarné jàng ci valeurs yi incarné ko jëmmal ko ba Sénégal mën a tabaxu ci valeur yi ak identité culturelle. Sénégal président République mais di gërëm aussi suñu xarit suñu parrain l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké yàlla mun na seede day keroog bu ñu jël document bi phase yi dem fekk ak këram dindi ñu ne ko fii la ñu indi phase yi dañ ko jox document bi. mu ne nangu na su neexee yàlla lépp lu nga xam ne war nañ ko ci def dinañ ko ci def boobu ba tey nag man nag moom daanax ñaari fan bu ne dañu jokkoo malgré son calendrier chargé ma koy wax mbir mi fan la nag fan la toll mu ñuy wax ne jàpp leen à gauche dem leen à droite continuer leen ba yàlla dogal ni tey jii ñuy def lancement bu nga xam ne ne dinañu toog ay at at di nettali honorable ñu ngi 37e édition ñun lu ñu fi gis tey géej nañ ko gis ñu nekkoon ci biti ñoo gën a bari ñu nekkoon ci biir loolu nag lu ko indi mooy xëy na parrain bi mais lu ko indi aussi mooy waa Mbacké et waa Diourbel ñëpp xam nañu ne que Mbacké dafa bëgg nawetaan mais au-delà de cela, remercier euh, le président la République, comme je le Premier ministre, Madame le ministre des Sports, le gouverneur de la région, tous les préfets, remercier le président de l'ORCAV dafa am dëj fu mu toll nii yaayu jabaram dafa génn àdduna ñu ngi koy jaale mais malgré il s'est investi honorable ñu ngi lay gërëm lumière bi tey nii lu mu takkati xam nañu loo si def au-delà des directives du gouvernement xab nañu ne depuis dem ba tey ba sànq 10 heures bu may ñëw sa kër intervention bu nga dem ba ñu joué parce que dañ doon xalaat dindi leen deux matchs donc honorable ñu ngi lay wax ne jërëjëf lépp loo defal nawetaan bi yal na la yàlla delloo. y' a un mois de cela réeréer nga ASC yi fii nga may leen ay jeux de maillot jox xaalis. loolu si public bi. ceux qui ont voulu assister à ces matchs à ces matchs n'ont pas pu le faire nañu xam ne c'est indépendant de notre volonté compétition yi y a 32 équipes seniors réparties dans huit poules fii quatre poules mu fi ne tous les mondes dafa am deux poules Bambey deux poules en senior cadet y a équipes réparties en quatre en oui, quatre de huit deux poules mooy joué à douze troupes théâtrales loolu gën ñu am théâtre bi su neexee yàlla Diourbel lañ koy def mais aussi honorable monsieur le président am na la dixième université thème central bi citoyenneté active au service du développement loolu tamit dinañ si waxtaan affaire jigéen dinañ si waxtaan euh, actuellement ni lu ñu tuddee immigration clandestine dinañ siy waxtaane les ASC soxla du développement yaa dinañ ci waxtaanee wér-gu-yaram dinañ ci waxtaanee lépp lu nga xam ne mu nga anaas avancé la réew mi mais honorable damay remercier aussi la presse tey jii nii tout le pays la c'est plus de dix mille sénégalais qui sont dans la région su dee waa Kédougou waa Matam waa Ziguinchor waa Dakar waa Thiès ñu ngi déglu ñu ngi seetaan ñu ngi xam seen njaboot fu mu ne c'est parce que la presse est en train de jouer sa partition dans ces phases. mbégte ak contentement boo nekk xam na ne phase mu nekk ci man noonu la nekk ci waa département Mbàkke yëpp mais noonu nekk ci waa région de Louga yëpp fierté ak kon Amadou Kane yaag ñi nga àndal ñëpp ñun waa Mbacke amuñ seen fay dañ leen di jaajëfal ni ma la ko waxee woon bi nga ñëwee sama kër dama na département Mbacke département football la mais département sport la boo xam ne dañoo bëgg kii bi boo ko fi indee doo ko rëcc jàpp naa léegi si mobilisation di nekk ci biti moom ëpp fuuf kon loolu day wane ne seen choix tout moo leen mais waa département Mbacke xam nañ li leen indi mooy dinañ ko téye mooy dinañ ko def ci jàmm yéegale ko ci jàmm dara du manque espoir bu ñu ko waxee nga am ku gañe am ku perte mais lépp ndam lu génn Sénégal bi nga xamante ne bii mooy gañ ki perte na ko félicité mu dem ñibbi si jàmm ndax koo fi gaañ nga sa rek wala nga sa bopp ndax ban njëriñ bu bëree bu ñuy dem ba naan nawetaan dañ ko war a sécurité Sénégal violence bi moo tax kon loolu waa ay noble lañ ay nit ñu respecté lañ ay nit war respecté lañ kon jàpp naa ne violence amul place ci ndax boo xoolee football léegi ay milliardaires ñoo koy def ci gën a risque àdduna bi ñoo koy kon bu fekkee da nga koo ko yow da nga war a mais waroo fee ñëw seetaan si mu xam ne bu la yàqalee bopp la yàqal kon appel boobu laay ne da ngaa bokk ci phase nationale ñu xam ne leen évité am ñoo xam ne dañ leen a dañoo football ba qualifié kon yoon la ñu football ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm appel boobu la ñu lancé di sant nag encore une fois Amadou Kane ak te am na fi accident am te jàpp naa ne loolu amati kon li ñu wax mooy ñu war a jàmm yëkkati tam te ñu ko seet muy maire Ablaye Fall ak waa ODCAV e yëpp ak waa ANCAV ñu ngi sant ñëpp di gërëm